gën dégg li nga xam ne ndaw ñi moom lañ wax waaw wane leen ginnaaw rek wane leen ginnaaw voilà yéen a ngi koy gis nii ndaw Ousmane Sonko yi ñu ngi nii fas yéene jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi gis nga leen ñu ngi noonu di génn ci fi nga xamante ni mooy koñu Ousmane Sonko di def par petit groupe pour mën a jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi boo jëlee fii nga xamante ne nii moo nekk sama ginnaaw foofu moom mooy gaaru BRT bi foofu moom force de l'ordre yi dañ ko baare pour booy yi ba ñu ñëw li nga xamante ni mooy bi mais actuellement booy ñoom côté bii lañ jël waaw mooy blende bi fu mu taxawee côté boobu la ñu jël parce que nee nañ côté boobu lacrymogène yi ginnaaw la koy won affaire yi du ñëw si ñoom gars yi bi ñu ko sànnee day dem si seen côté loolu moo tax ñoom ñu jël position bi loolu nag ay seen stratégie la yaa ngi leen di gis noonu ñu ngi avancé boo yaa ngi avancé yaa ngi leen di gis noonu gars yaa ngi avancé en masse gis ngeen leen ñu ngi avancé am na ñoo xam ne dañu làqatu ci koñ bi gis ngeen leen voilà gars yaa ngi avancé pour jàkkaarloo ñi nga xam ne mooy force de l'ordre yi BRT bi gaaru BRT baa ngi nii fii moom gendarme yi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko bunkerisé yéen a ngi koy gis nii gaaru BRT bi fii moom góoma kenn dina fi am accès parce que gendarme yi dañ ko bunkerisé pour bañ ku ko yàq mais déedéet dafa dagg. bi bindal fii rek affrontement entre les jeunes entre les partisans de la Médina TV ñëwaat ah direct bi tàggoo problème technique et toujours ñu ngi fii te loolu ñu am na ñooy des militants ils sont di sànni ay xeer foofu la loolu ñu ngi avancé ñu ngi ñu ngi avancé ñu ngi ñu ngi avancé ñu ngi avancé Yes, the one I know non ti voglio. E là poi io sei. No, quello mi dice niente. Qualche video mi sono. voilà yéen a ngi koy gis nii force de l'ordre yi nag ñi avancé pour euh, fay wala diddi barrage yi Ousmane Sonko yi def nañ ko ci un nga xamante ne ni tali BRT bi fi bi war a jaar gis nga leen noonu ñuy dindi li nga xamante ni mooy barrage yi booy yi nag pour le moment daw nañ duggaan nañu ci biir cité kër góor gi duggaan nañu cité kër góor gi précisément koñ bi nga xamante ne fa la seen leader dëkk di Ousmane Sonko fa lañ dawaat gis nga leen force loolu yeneen gis noonu en image ñuy dindi barrière yi nga xamante ni booy def nañ ko fa barrage yi nga xamante ni booy def nañ ko fa yeneen gis kees ko boobu noonu ñu daaneel ak ay pneu voilà force loolu yi nag ñu ngi avancer petit à petit yéen ngi koy gis noonu en image yéen ngi koy gis noonu en image gis ngeen leen voilà c'est ça voilà yéen gis fan force de l'ordre bi noonu di fay affaire yi voilà yéen koy gis noonu yéen koy gis noonu dooy dañoo xaw a taal suufu oto boobu noonu voilà ay image yoo xamante ni yéen a koy gis nii yéen a koy am li nga xamante ni mooy situation bi nga xamante ni moo am fi nga xamante ni mooy euh, cité kër góor gi pour le moment. voilà yéen koy gis noonu en image. force de l'ordre di avancer, di gagner terrain petit à petit. am na ma jëlagum kay boo ko jëloon ordinateur moom mu ñu doon xeex ak policiers yi centre